waaw li ñuy yëg mooy am contentement bu baax euh, di bëgg parce que final moom dafa neex surtout sa réew di def compétition mu dem ba final xam nga final moom gëj nañoo dem final depuis 2002 kon am na ñoo xamante ne si dalay leer ni euh, fekk wuñ jamonoy 2002 mais comme que ñaan nañu yàlla fekkee 2019 bi. di ñaan yàlla ndam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. te yalla dinañ ko may ci carton yalla parce que Sénégal mom dañu gëj am bicté mom depuis 17 ans ba tay parce que ñun yeg yeg bi am wax dëgg yalla vraiment ni ni nii mënuma la ko wax parce que ñun dañu bëgg rek coupe bi lañ bëgg bu ñëw fi ci carton yalla dina fi ñëw 1-0 bi moom day lèr ci carton yalla dañuy door ma la wax li te ragal na ni match bi képp ko am gis-gis. wala nga yàgg ci sport war ngaa xam ne coupe bi coupe bu Sénégal la incha allahu rabbi parce que réew mi ñëpp ànd nañ nekk benn xol nekk na benn te incha allahu rabbi fii ak suba su fi benn xiiroo amul benn ŋaayoo amu fi sooba yàlla yonent bi coupe bi moom incha allahu rabbi Sénégal la jëm si. parce que Sénégal moom ñëpp xam nañu fi ñu toll nii lii population bi bëgg li réew mi bëgg ñi xam nañ ko parce que bu dee final moom dèjà dem nañ ko en 2002 comme ni nga ko waxee dem nañ demi final kon donc. li resté rek li nga xamni ni la population bëgg mom la Sénégal bëgg fiñ mu toll nii coupe bi coupe bi rek moy nek li nga xamante ni bu ñëwé pour ci lañuy mëna am satisfaction. incha ndam rek inshallah lo loolu ya ñaan yalla may ñu ndam bu sédd guy ñu comme niñ ko doon défé rek ñu continuer ko noonu. Mhm. ñaax leen ñu doli fit ak jom biñ leen xamé rek liñ leen wax comme ko ya lañu wax wa inshallah nañ ñaan yalla ñu boole xol yi tapé xol yi li ma Abdou dan wax rek ba yalla may ñu ndam dal ndax ndam li bu amé Sénégal moo am ndam daal te boo Sénégal amee ndam ñu ñëpp mën nañ si jaruñu daal yeneen yàlla suturaal ba ñëpp am ndam daal ba ñu indi ndam bi Sénégal daal. Ah, bu kenn tiit bu kenn ragal quoi final moom incha allah day ñëw ci kàttanu yàlla incha allah waaw. Massi ndam Massi moom ndam rek kenn tuddul xalaat lu ndam Sénégal moom day jël coupe bi coupe bi moom sunu coupe la coupe bi moom dañ koy jël incha allah rabbi joueurs yi li ñu leen mooy ñu gën a góorgóorlu yokk fit jam gom fulla fayda ala Mor Gueye Fall yokk fulla fit jom fayda. waa match bi ñu ñu waaj ko rek comme niñ ko yàgg a waajee rek supporter Lions yi préparer final bi rek incha allah Sénégal jël jël coupe bi na ko yàlla na ko yàlla def yàlla na fu ndam li ñëw si barke Serigne Babacar Sénégal li ma leen di ñaax rek mooy ñu teey teey rek te am fulla ak fayda match bi tey tey la parce que naar yi dañ seen xel loo gaaw gaaw rek ñoo la gën a gaaw nañ nañ tey rek te jéem a def défense bi ñag ñage camp yi li ko gën a waxee téye camp yi rek kenn bañ a dem. gaal moom wax dëgg yàlla ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam te mu teel quoi ñu teel a gagné euh, ci première mi-temps bi ñu xam fu ñu féete quoi parce que vraiment sénégalais yi tamit bu ñuy seetaan d'habitude bu nuy seetaan mat Sénégal danuy am pression bu méttee méttee. di leen ñaanal rek ñun daal ñaan la ñu war ñun noo ngi ñaan. li ci des na moo koy mottil ak ñoom ca biir place ba ñu koy defee nañu am seen fulla ak seen fayda am seen dignité te gëm seen bopp lii rek. suur daal maanaam daal mel ne kenn ku ne ànd ak dara rek mbirum bi daal soo bëggee dara kenn ku ne meen ànd ak daal rek soo ànd ak daal moom loo bëgg di ko am moom. du yomb nag du yomb ndax maam lu ñëpp bëgg moom mënut a yomb daal mais dañuy ñaan yàlla ma xam mooy may ndam la yàlla yàlla may ndam lu seddu guy guy guy guy waaw loolu laa lay ñaan. ñu lancer waat message rek wax leen di leen ñu ànd ak amak yar waaw que le meilleur gagne c'est l'Afrique qui gagne. je man Sénégal dina gagne ñi nga man sama moy étoile la ñëk def étoile sama moy man étoile la ñëk def parce que gëm na damay gagne waaw dama ko gëm dama gëm dañuy jël coupe bi lool rek la may leen ni waaw waaw di leen wax nak moy lool inshallah allah que le meilleur gagne ci carton yalla yalla yalla may ndam. c'est bi rek indi ko jël coupe bi rek indi ko yalla nañ yalla may ndam ci barke Serigne Babacar si ndax namoon nañ ko trop comme que dem nañ ba final dal baax na yàlla nañu yàlla may ndam su Sénégal bu fubalee rek ñëw yaa ngi dégg première minute yi sawaay ñu dóor gars yi dàll fubal amul ay kii comme ni leen ko Macky Sall waxee amul ay lion de la teranga dañ bàyyi fii teranga gi dem xam nga ñàkkante ñëw c'est problème. non score bi ah bon 2 rek 2 baax na. waaw Sadio Mané dugal ñaari rek. maa ngi gis 2-0. daal suñ ko tegee ci yoon rek war na mën a dugal 2 bii bu Algérie di am benn di am benn. non score bi suba moom gis naa trois yu mat moom dinañ leen sexal ñett te duñ ci yàbbi benn. ñaari saf sap deux la lañuy door man maa ko wax de. deux. deux zéro incha allah. cinq zéro. xam naa dina baax. cinq. un maa ko wax. man mbay pause maa wax. maa ngi leen di wax nañ dugal quatre zéro ah ñu indi ko indi ko fii Sénégal ñu am ndam. même bi c'est 40 millions maa leen koy may jël ndam le yal na leen yàlla may ndam lu baax. yàlla nañ gagné 2 si barke Seydina 3-0. waaw. yal na Sadio Mané dugal 4-0. yal na Sénégal dugal 10-0. <laughs> Keita Baldé affaire bi Keita Baldé la Keita Baldé la ñëw ndar ndar bi la ñëw.